la monde waa rànkee ngi doog a jot ak réeroo amna ngi doog jot waye sarab li ngi doog a jot tanki waro waroon dox ci kaw suuf mo nek ci kaw bob bi waro a féete kaw mo dox ci suuf Sénégal parce que journaliste bi war a informer peuple bi moom peuple bi moo tourné di ko informe maanaam journaliste yi ñoo waroon a informer peuple bi mais ndeke ñoom peuple bi ñu informer peuple bee leen ëpp information ba tourné di leen informer ñoom journaliste yi <laughs> ndeke ñoom biñu ñuy informer peuple bi déclaration de politique générale générale bi fekk na peuple bi xamné amul benn délai bu tënk président Ousmane Sonko te ñoom xamuñu ko <laughs> ndegete biñ daan 3 mois gaay 3 mois tënkoon ndegete amu ci kenn ku ma sa respecté 3 mois de délai yi <laughs> yi constitution tënkoon ak règlement intérieur <laughs> te xamuñu ko <laughs> moo tax Sénégal ak réeroo am na sarab liiwaay waay ah waaw yow bu demee ba nga xam ne journaliste bi war a informer moom peuple bi muy informer peuple bi moom mujj di ko informer non vraiment Sénégal yàqu na quoi.